rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi mbokki ëtti lislaam yi eh, noo ngi amaat mbégte di ñëwaat ak yéen ci sunu émission bi nga xam ne nu ñu ànd ak docteur Abdoul Ahad Sané te di ci waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci ngir yi nga xam ne ñooy ngir yi tënku ci mm, diiney lislaam te émission boobu ñu duppee ko xawlal madahibil arbaa bokk yéen a ngi ñuy topp ci eh, émission bu am solo bi di jaajëfal bu baax a baax eh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi jël seeni téléphone di woote incha allah danañ leen ci ubbil ab numéro boo xam ne képp ku ci am question danga ko ci war a mën a jaarale mu di numéro whatsapp incha allah ci émission yii di ñëw eh, te rek sëñ Abdou Lahat ñu fas yéene ànd ak moom ci mu xamal ñu imam ju mag jooju di imam Malik nga xam ne lu ëpp ci réewum senegal mii ci am ngiram la ñu nekk rawatina euh, yoon wi ñu nekk di tarixatul muridiya waaye day mel ne ngir ngirum imam malik lu tisaaroo la ci àdduna bi euh, ba ñu bari dañ naan ay maliki yoon lañ ñu bëggoon ñëw rek euh, bala ñuy dugg ci ngir mi dëgg nag sëñ Abdou ñëw andil ñu porté lépp kan mooy imam malik di sunu fóore ju rëy bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu ah, ñu ngi am mbégte daje waat ak ci sunu jataay yi ñu too tuddee xawla al aimati di jataayu jàng ak jàngat li nga xam ni mooy dundu aimma yooyu ak seeni mbind ak seeni madhab euh, na mu sosoo ak na mu tëdde tey nag dinañu waxtaan tuuti ci ki nga xam ne mooy al imam malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir al asbahi nga xam ni mooy njiitu madhab bii nga xam ni Euh, fii ci senegaal jullit ñi moom la la ëpp ci jullit ñi bopp ci madhab boobu lañu ne euh, Afrique de l'Ouest it manees na ne ñëpp rek réew yëpp ci ngiru madhab euh, ci ngiru imam Malik it la ñu ne Afrique sax nag boo demee Afrique fépp rek fépp foo xam ni réewum jullit la ci Afrique lu dut ay réew yu néew ñooñu ñooy réew yi askanoowul ci ngiru imam Malik mm-hmm. lu mel ni Tanzanie ak lu mel ni euh, Juzurul Comor île des Comores ak lu mel ni Éthiopie euh, ak Érythrée ak Somalie ñooña ñooy réew yi nga xam ni seenu madhab du madhabu Malik euh, am na ci nag benn benn réew yoo xam ni madahib yi dañ faa tasaaroo lu mel ni Misra Égypte malikiya yaa nga fa chafiiya yaa nga fa xanafiya yaa nga fa Soudan tamit noonu waaye la ca des lu mel ni Libye marok Algérie Tunisie Mauritanie ak réewu jullit yi ci Afrique yu dut yooya ma tudd ñoom ñépp ay malikiya lañu kon dana jaadu ñu xam euh, taxaw ci ay tomb ci tomb yoo xam ne dafay aju ci dundu euh, imaam Malik imaam Malik comme ni ñu ko waxee mi ngi tudd Malik ibnu Anas ibnu malik ibnu abi amir al asbahi euh, baay ba mooy anas maam ja di malik te moom lañ moom lañ ko tuddee maam jooja nag doonoon ku ràññeeku woon ci jamonoy Ousmane ndax ba ñu faatee Ousmane ibnu Affan radiallahu taala anhu ñett wala ñeent ñi nga xam ni ñoo ko rawale guddi dem rob ko dem denc ko maamu Malik booba ca la bokk mm-hmm. mooy maamam dañu ko tudde mm-hmm. euh, maamu maamaatam nag mooy ki jur maamam di abu amir al yi kooka moom saxaaba yonent bi la woon ca la gën a wér seen cosaan nag waa yaman lañu buuri yaman yooya ñu daan tuddee zi asbah Malik foofa la bokkoon ci xeet woowa la bokk yàlla dogal mu juddoo Madina am na ñu ne du biir Madina waaye ci dëkk yi nekk ci feggu peggu Madina eh, foofa la juddoo waaye nag comme dëkk lu baree bari dëkk bu nekk ci banlieue yëpp dëkk Ah, dañ koy faral di boole ca dëkk booba mm. eh, lu mel ni jamono buñ nee ndindi ca Touba la bokk ku dëkk ndindi ñu laaj la nga ne Touba mm. loola aadatan noona la da mbir yi daan demee mm-hmm. eh, baayam nag eh, mu bokkoon ci famille boo xam ni famille xam-xam la mm. dale ko ci maamam jooju di Abu Amir ak turandoom di jur baayam di ñoom ñëpp ay borom xam-xam woon famille xam-xam la yàlla dogal nag baayam nag moom doonut woon borom xam-xam Euh, wala bu doon borom xam-xam it yënguwul woon ci njàng ak njàngale. Mhm. bàyyi bi lu mel ni xeeti liggéeyu tëgg yooyu la doon liggéey. Mhm. liggéey yu weñ la daan liggéey. ab atelier am la yor doon defar ay mbubi koŋ euh, ak i jaasi ak i fett ak i xeej liggéey yu weñ daal moo nekkoon liggéeyam. Mhm. moom bàyyu imaam Malik. amaana nag li tax amul sens pour mën a dem jàngi mooy ni yàlla da ko natt woon dafa judduwaaleek laago laagoo laagoogu mooy ni daawul woon dox amul woon i tànk moom bàyyi imam Malik di Anas. bu ko kenn jaawalee nag ak Anas ibnu Malik booba di saxaaba. Mhm. kooku bokkul ak bokkul ak baayu Malik. dëgg la waaw donte bokk na ak baayu Malik tur. Mhm. bokk yi turu baay. Mhm. ndax saaba yonent bi xaadimu rasul moomu. Anas ibnu Malik la tuddoon. Malik it baayam Anas ibnu Malik la tuddoon. kon Anas ibnu Malik moomu bokkul ak. <coughs> baayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayu Malik. <coughs> taala anhu. baayu Malick kon bokkul la xaadimu rasul. sallallahu alayhi wa sallam. Eh, nag ca la juddoo eh, ndeyam tudd Aliya Aliyatu buntu Shari bintu Sharik. Aliya comme ni ñuy bindee suñu quartier bi rek di Aliya noonu la ñuy bindee tudd ndeyu Malick. Aliya la la ndeyam tuddoon. Eh, bintu Sharik al Azdiya. moom it ci xeetu arab la bokkoon. gannaaw ba mu juddoo Madina wala juddoo ci banlieue bu Madina. Euh, dem ba toll ci njàng mu jàng alquran sëriñam bi ko jàngal alxuraan mooy naafia naafia bii nga xam ni kenn la ci jàngkati alxuraan ya di juróom-ñaar mm-hmm. naafia moomu mm-hmm. mooy sëriñu Malick ci njàngum alquranam mm-hmm. moo jàngal Malick ba mu mokkal alxuraan jóge fa nag commencé sàkku xam-xam ci sàkkoo xam-xamam daje naag ay sëriñ yu bari waaye sëriñam yooyu yëpp daanaka manees na ne ay waa madinatul munawwara lañu bokk na ci ñi gënoon a siiw ci ay sëriñam yi nga xam ni daa jànge ci ñoom bokkoon na ca eh, ku mel ni eh, Abu Zinaad te mu ñu gën mu tuddoon Abdullah ibnu Zakwaan ñu naan ko Abu Zinaad ci sëriñ ya ko jàngal la bokkoon bokk na ci ay sëriñam ba tey kuñ naan Muhammad ibnu Dinaar bokkoon na ci ay sëriñam Rabiatu ibnu Abdurahman bokkoon na ci ay sëriñam Muhammad ibnu Shihab az-Zuhri bokkoon na ci ay sëriñam Yahya ibnu Saïd al Ansaari bokkoon na ci Hisham ibnu Urwa eh, bokkoon na ci ba tey Abdurahman ibnu Hurmuz al Araj eh, ñooña ñëpp ay sëriñam la ñu woon yoo xam ni Maalik takkoon ak ñoom ab diir bu yàgg yàlla dimbali ko it ci mu dajeeg sëriñ yu bari jànge ci ñoom xam-xam ndax wax na ni jànge na ci juróom-ñeenti téeméeri nit yoo xam ni jàngal nañ ko. juróom-ñeenti téeméeri nit. juróom-ñeenti téeméeri yooya yëpp. ñetti téeméeri yaag lu teg dongay saxaaba yi saxaaba yi lañu woon ñetti téeméer ak lu teg saxaaba yi ñooy seeni baay walla ñu doon seeni sëriñ kon loola taxoon na yàlla dimbali ko mu teel a am nu buux mu teel a bënn xam-xamam teel a bënn loola dafa bokkoon ci xasaayi si Malik ba mu jàngee it Madina ba yeggalum njàngam ay sëriñam yu bari lu toll ci juróom-ñaar fukki ci ay sëriñam ñooña ñoo ko mujjee wax ne ko jot na nag nga ber sa daara jot na nga ber sa daara ndax njàng njàngaan boo mokkalee ber sa daara ci la Malick beree daaraam ba mu beree daaraam tàmbalee di jàngale këram jóge ca euh, comment ñu ñu jox ko xalaqa ci wetu xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fala daaraam nekkoon mu fay jàngale xam-xam euh, mi ngi koy waxal boppam ne tooguma di jàngale lu dut ni lu toll ci juróom ñaar fukk ci samay sëriñ seedeel nañu ma ne war naa mën a toog jàngale léegi hmm. euh, booba la tàmbaleem njàngaleem ba mu tàmbalee it ci jamonoom ci jamono yi ay sëriñam ya ko daan jàngal ba Malick tàmbalee njàngale seeni daara daa commencé gent daara yi sëriñam yooya daa commencé gent ñu bari jógee ca daara yooya ñëw di jàng si ci moom bàyyi daara ja ñu ne ja mu bokkoon ak ñoom hmm. loola sunu borom defal na ko ko bokk na ci li ko sunu borom defal ba tey mi ngi koy waxal boppam ne képp koo xam ni mas na maa jàngal te yàlla may la gudd fan dellu nga di jàngat ci man képp ku ma mas a jàngal mhm. te nga gudd fan dellusiwaat nga di jànge ci ci man Zuhri jànge na ci moom Yahya ibnu Saïd al Ansari jànge na ci ci ci moom Hisham ibnu Urwa euh, solo jànge na ci moom ay moromam yi mu bokkal daara ay magi daaraam ku mel ni ñoom ibnu Jurayj ñoom ibnu Abi ñoom ñëpp dellu nañu di tëralu ci Maalik radiyallahu anhu wa anhum kon loola dafay wane dayoog Malick Malick nag euh, euh, yàlla dogal na it euh, mu doon koo xam ni boroom xam yëpp dañu dëppoo ci moom dëppoo ci xam dëppoo ci ni kaana imaaman min aimmatil muslimin ndax ay may ku ci ne am na as sikk suñ la sikkal si genn anam gi wala am na lu ñu wàññi luñ la wàññil waaye Malick moom dafa nekkoon nekkoon ci njobboxtani xam-xam ndax bu ñuy joxe misaal xam-xami lislaam jamono yooyu daanaka ci ñaar la doon wër fiq la woon ak xadiis xam-xamu fiq ak xam-xamu hadis waaye ay ma yëpp dëppoo nañu ni maalik ci jamonoom xadiis moo ko ca gën a man ñëpp dëppoo nañu ci loolu ci jamonoom amut kenn ku muy maaseel ci hadis ndax amut martaba bu kawe ci xadiis martabay amirul muminina fil xadis waaw te moom tudde woon nañ ko ne Malik amirul muminina fil xadis yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci jataay yi di ñëw mhm. eh, amirul muminina fil xadis mooy buurub jullit ñi ci xadiis mhm. buur defe naa mooy kilifa mhm. eh, Omar ibnul Xataab ko njëkk a tudd amirul muminin ndax moo nekkoon buurub jullit ñëpp kilifa yi jullit ñëpp Malik nag ñu duppe ko moom it ne bu dee bu dee xadiis am réew la kon buur ba mooy imam Malik loolu daan nañ ko ko tuddee amut martaba bu ko gën a kawe ci xam-xamu xadis du xaafid du euh, xaakim amut alqaab yooyu du muhaddis lépp rek amirul muminina moo ca gënoon a kawe te tudde woon nañ ko bittifaaq ñëpp dëppoo ca e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa waxub xadiis boo xam ne tirmidi yi moo ko solo mu doon xadis bu wér ñii ne xadis bi xasan la mu ne yonent bi nee na yuushiku an yadriba annaasu akbaadal ibil yaltamisuuna al ilma fala yajiduuna alama min aalimi al madina nee na jamono dana masa am nit ñi dinañu xaw di takk seeni laxasaay war seeni géléem fëx daw wuti xam-xam waaye na ñëpp xam ni bu ñu tolloo ci jamono jooju kenn du fekk fenn benn boroom xam-xam bu gën a xam boroom xam-xamu madina ba Sufyaan ibnu Uyayna nee na waat na ci yàlla ni kooka moom Maalik la ci yonent bi jublu mm-hmm. ndax amul kenn ku mas mel ni maalik xam ni fu nekk nit jóge na fa ñëw jàng si ci yow ca Madina lu jiitu Malick mhm. daaraam nit gàddaaye na fu ne dem daaraam jóge ba Espagne gi Andalus mhm. dem ba Madina ngir Malick rek la tax a jóg ñu baree ko defoon mhm. ñii jóge Égypte ku demee ni Ibnul Qasim ku demee ni Ashhab ku demee ni Abdullah Ibnul Mubarak ku demee ni Ibnu Abdil Hakam gàddaay dem Madina ngir jàng laxas dem Madina ngir jàngi ci Malick ku demee ni Shabtun eh, ku demee ni eh, Yahya ibnu Yahya Laysi ñoom it gàddaaye ak ñeneen ak ñeneen gàddaaye andalus di Espagne dem fekki Malik ku demee ni qaana bi gàddaaye Iraq laxase Iraq dem fekki Malik euh, fu ne nit jóge na fa ci àdduna Yaman euh, Iraq booba dañ naan wax Basra ak Baghdad fépp rek Sham nit jóge na fa dem fekki Malik jàng ci moom jamonoom laxas sàkku ji xam-xam ñépp rek foofa la ñu jublu woon moo tax qaadi iyaad ci tartibul madaarik mu ngi lim taalibe yi nga xam ni sax na ni wér na ni jàng nañu ci Maalik mu watta ba jeexal ko mu ne toll nañ ci junni ak ñaar téeméer wala junni ak ñetti téeméer ci ay taalibe yi jànge ci moom mu watta ba jeexale ko ci moom mm-hmm. mu cay lim ñamu xam seen tur lim na ci junni ak tuuti ne waaye amul sikki sàkk ni junni ak ñetti téeméer waaye lii la ci teewlu mm-hmm. ci seeni tur ñoom mm-hmm. kon Maalik ci jamonoom Euh, moom moo nekkoon jubluwaayu ñëpp rek mm-hmm. ñëpp ci moom lañ daan jublu daan jàngi mm-hmm. kon boole na xam-xamu fiq mm-hmm. ak xam-xamu hadis euh, hadis mu raw ca ñëpp fiq it kenn rawu ko ca boo koy lëkkaleeg tëkkaleeg yenn ay may laa shakka ni fu mu toll ci hadis imaam Ahmad ibnu Hanbal amaana tollu na fa loolu amul sikki sàkk waaye ci wàllu fiq waaye Shafii wér na ni Maalik ko raw ci hadis Abu Hanifa wér na ni Maalik ko raw ci hadis eh, kon mën nañu ne Ahmad ibnu Hanbal naataangoom la ci hadis waaye dafa rawee Ahmad ibnu Hanbal fiq ndax am na boroom xam-xam yu bari nee nañ Ahmad ibnu Hanbal doonul woonub faqih Abu Jaafar Tabari noonu la gisee woon ne du woonub faqih mm-hmm. eh, bu dee ci wàllu fiq it amut sikki sàkka ni rawu ci imaam Shafii waaye xadis moo ca raw imaam Shafii ndax taxawaay ci xadis wa gën a dëgër ci kaw suuf taxawaayu Malik da caa bokk ndax nee nañu xadis ya gën a wér ci xadis yi mooy xadis boo xam ne Malik moo ko solo jële ko ci Naafi Naafi jële ko ci Abdullah ibni Omar loolu Malik moo ko am Shafii amu ko macha allah kon moo mënoon moo sutoon Shafii ci xadis donte mën naa doon naataangoom ci fiq mm-hmm. Abu Xanifa it Eh, naataangoom la ci fiq waaye moo ko sutoon ci hadis ndax hmm. Abu Hanifa mooy kenn ci imaam yi koo xam ni am na boroom xam-xam yu ne mu haddisuuna yoo xam ni nee nañu woon daif la ci hadis ba daawuñu sukkandiku ci hadisam hmm. waaye fiq moom it hmm. kenn rawu ko ci kon imaam Ahmadu imaam uh, Malik ku nekk fa nga mane dala caa raw wala mu tolloo caag yow dëgg la fa nga manewul mu raw la fa ci lu amul benn sikki sàkk macha allah kon loola miisa la boo xam ni imaam Malik da ko amoon. jërëjëf kon ci gàttal moom imaam moo mu ñu doon tudd atub juróom-ñeent fukk ak ñett la la gane àdduna faatu atub téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu kon juróom-ñett fukki at la dund ci kaw suuf kon lii moom doo doon suñu jataayu tey eh, ñu leen di jox di daje ci yeneen i jataay incha allah ci seen émission bu xawla al madahib al arbaa wasalaamu aleykum wa wa barakaatu. jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, leer na naññ ci ki bëggoon a xam kan mooy imam Malik yaakaar naa ne leer na alhamdulilahi rabbil alamin bi nga gën a leeral nag Malik ibnu Anas ñu xam ne nag Anas ma nekkoon xaadim rasul bokkut ak Anas mi nga xam ne mooy bàyyib imam Malik ci ñi nga xam ne ñu ngi dégg jataay yi euh, alhamdulilah bi nga indee itam Malik ñi nga xam ne jàngal nañ ko ci ay sëriñ dem ba àgg ñi nga xam ne ñoo ko ber war ko na ko nag xamal ne yow kat taalub jàngu jaadu na ci yow nag nga taal ko ndax ku doon jàng ba mokkal war a mën a ber sa daara loolu it ba muy ber daaraam layalal na ko boppam wala ne bu leen jekki yaakaar na rek damaa jekki-jekki ber daara ñama doon jàngal lenn ca ñooña mbooloo ñoo ca tànn war na ma war na ma jàngale loolu it feeñ ne ci biir résultat am jàngaleem mooy koo xam ne dem nga ba ne am naa lu mat junni élève ak ñetti téeméer yoo xam ne bokkuñu ay réew yu ñu bàyyi ko ñëw jàng si ci man te ñooñu ñëpp di ay fóore eh, yaakaar naa ne loolu feeñ na ci ne bu ñu ne diw am na xam-xam ñu ne kan moo ko seere ñu ne borom xam-xam yi ñoo ko seere dana mandargaal xam-xam bu mag kon yaakaar naa ne imam ju mag ji di imam Malik eh, jot nañ cee dégg incha allah dana ñëwaat ci eh, suñu tomb ñaareel waat ko ci moom kon dañuy jox rendez-vous mbooleem téléspectateurs yi rek Eh, ñu bàyyi xel eh, jotaay bii di xawlal mazahibul arbaa te amee ci seen télévision bu lam Fall ñu di ko seq ak sëriñ Abdou Lahad Sané seen mbokk taalibe Fallou Galass Sill nekk ci micro bi feggoo ak alaaji Fallou Sill ci caméra bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.